nit ñi dañuy fàtte ne Macky Sall premier ministre dem na Fatick fii di voter pour l'élection locale. Mhm. ñu ne ko doo voter parce que yoroo sa mu forcer bunt bi dugg. loolu ba tey ñu ngi koy fàttaliku. mais alors. que pour dire quoi. rapport de force moo ko fii jëlee. et il faut instaurer ce rapport de force là. avec toutes les non avec toute la base sociale. du Sénégal. mais est-ce qu'il est encore possible parce que l'opposition quoi qu'on puisse dire seen doole dafa wàññeeku euh, sur le terrain depuis euh, ngeen nangu ñu teg loxo ñenn ñi dissoudre parti politique te àdduwu leen ci yu mel noonu aussi dafa leen a fragiliser. bu baax ce n'est ce n'est pas le le problème des partis d'opposition uniquement c'est le problème du peuple Macky Sall n'a pas problème avec c'est uniquement. les partis d'opposition ou les candidats ñun le peuple dajaloo. Mhm. nekk benn say. taxaw jàkkaarloo ak moom. mais ce peuple vous met tous dans dans dans dans le non ñoom li ñuy wax mooy les hommes politiques les questions électorales moo leen moo leen intéressé. boo boo duggee ci peuple bi actuellement di waxtaan ak nit ñi di nga mm-hmm. xam attente peuple bi. attente su bëri mer nañu jamono ji. voilà parce que est que jar na ko. non parce que seen souveraineté la bu ñu buggee tabax réew mi. Mm-hmm. bugg ëllëg ki fi ñëw war fi nekk jël aspiration peuple bi ne ko peuple bi woon à tous les potentiels candidats de l'élection du 25 février que ne réew mi kenn dootu ko jël di ko disposer à ta guise comme ni nga ko bëggee te fii lañ ko mën a wane